Touba Mbacké dëkk bu sell bi ñu am mbégte daje koo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal mu di Yawou Dial ñu fekk ko fii côté kër Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim Axla la dalal waaw gannaaw bu ma sant yàlla di sant sang-sang yi di sant Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim As Ndaw borom ndikk man waa Guyar transport ñoom ñëpp maa leen sant bu baax di gërëm di gërëm waa Sénégal ñëpp nag alors tey ñu ñëw di màggal bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha jigee ci réew mi di liggéeyal Yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey en tant que murid ban mbégte nga ban ban ban lan mooy yegg sa xol tey ji waaw monde bi entier la seen xol sedd ndax sëñ Bamba bu wootee moom ñëpp a ñàkk te mbir bi daal sëñ Bamba la di ko ñaanal yàlla daal yàlla yàlla yokku leeram si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doomu aadama fu ñu bàyyee ko fépp ñëw di tu ñëw di ñëw Tuubaa fi di ziyaare si di ñaanlu ñoom tamit lépp loo xam ne am nañu ko yéene seen biir xol rek yàlla na ko yàlla sotti bu baax a baax si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kañ nga ñëw Touba waaw man démb laa ñëw xam man moom xam rek ñun ñun moom ay muri la ñu waaw ñun <laughs> deret bi la ko dañ ko nàmp moo tax xam nga man daal loolu amul lu may wax daal waaw sëñ Abdou Karim mbake xam naa sa wóolare la ban relation nga am ak moom waaw xam nga sëñ Abdou Karim Mbacké moom yàlla moo ñu boole te muy suñu sëriñ yaa ngi ne ay soxnaam yaay ak ak yaay Mbacké ñun ñëpp bala ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm njaboot sëñ Tuubaa yëpp ak njaboot sëñ Fall yëpp waa ñoo ñoo leen ñaanal yàlla wër a gudd fan yàlla yokk leen ñoom ñëpp si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sëñ Abdou Karim Mbacké di ñaan yàlla yàlla guddale ay fanam yàlla yokk ko xam-xam bi yokk lépp waaye lépp natte baawaan bépp doomu aadama fu mu bàyyee ko fu nekk rek ñëw kër Baye Karim bi rek lépp lu nga fa am pour ñaan fi rek yàlla na ko yàlla sotti si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais bi bi mi day gën a yaa ma dégg ndaxte sekk at day yokk du am tàkk ginnaaw moo tax màggal Tuuba sànq la ñuy sax dañuy ñëw di ziare si kon boog am na loo xam du asaar quoi barke sëñ Bamba. alors du ma du ma du ma tàggoo ak yow. te laaj ma ne dama gis sa njël bi. Eh, maître Abdoulaye Wade l'ancien président de la République nekk ci tey ndax yaa ngi dégg itam ak ñi jëm ci présidentielle 2024 Karim Wade. waaw Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dama koy ñaan yàlla wër ak guddi fan ak ay ndaxte Ablaye Wade lépp lu ma mel ni noonu gannaaw yàlla Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam sama waajur man Ablaye Wade moo ma def star moo ma def champion ndaxte moo defal ba moo defal tranga joo xam tey mën naa bëri ba dee du ko am ndax ku daan kay ndax ku daan xëy si carré bi quatre heures matin wàcc minuit mu ne bu njëkk tranga ju toll noonu jox la ko xam ne kooku amuloo loo ko deeyatul mu ne Ablaye Wade maa ngi koy ñaanal yàlla lu mu yaakaar àddina ak alaxira si darje Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam yàlla na ko yàlla fay xolam te en même temps tamit nag maa ngi bëgg a lancé wàllu benn message ndax dama bëgg a posé candidat léegi président Sénégal mooy may ndam yàlla mooy joxe nguur yaa ma jaar na fi Abdou Diouf jaar na sama sëriñ Ablaye jaar na monsieur le président mu ngi fi nag ah xam naa élection 2024 moom wax dëgg sax man yaaw jee comme na mag ay ma te askanu Sénégal xam naa lu ñuy jooytu man nag jàng ma yëyu ma këyit waaye am naa conseil boo xam ne ak staff boo xam ne pour nekk président Sénégal man nag sama parti moo ngi na leer na leer bu yaaw jàll barke sëñ Bamba waaw alors yow nga bëgg a nekk candidat à la prochaine présidentielle 2024 sama numéro téléphone 77 la 562 24 89 léegi nag supporter Yawou ko dalee sa un ba jëm kaw ma dugal ba ma ba ma 40 millions rek ma posé candidat pour président Sénégal barak sëñ waaw man sama man man sama bët jéggi na Assemblée nationale sama bët man Yawou Dial yàlla mooy may yàlla def ne ko ñaan mu may ñu ah man nag suñu borom dama koy ñaan yàlla man sama sama bët bii bët Yawou Dial yii jéggi na Assemblée nationale président Sénégal nga ne lan. boo nekkee président waaw est-ce dama koy changer dama koy changer bool koog defar parce que sëñ bi am non xool dama ne en tout cas daal man sama bët jëkki na man daal président laa bëgg a doon te incha comme yàlla mooy moyen ndam daal ah am déet am déet assemblée nationale dinaa créer lépp defaraat lépp. xam naa bu ñu ñaanee yàlla ñaan suñu borom si kàttanu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam ba mu nekk président Sénégal lépp lay defar ndaxte lu gars yi di jooy man xam naa ko lang naa si car liggéey naa menuisier jàng naa école jàng naa alquran kon boog lu gars yi ñuy dund ak askanu Sénégal ñuy dund coono yëpp xam naa ko ndax damay dugg ku nekk xam naa lépp xam naa lu baax xam naa lu bon kon boog man gars yi nañ ma fal wala taalibu sëñ Abdou Karim Mbacke bi waru mën nekk président wala taalibu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Maxrib ak laa war war a a nekk président Sénégal kon réew mi kon réew mi nañ ma ko jox yéen nañ ma jox réew mi ma seer ko xam fu may teg sama tànk ma dugal ngaa ko ma nag mais naa conseil yoo xam ne nii xam nga tey boo xoolee samay conseil ab la maître président Abdoulaye Wade xam nga ni kooku sama sëriñ la sama lépp la non loolu xam ma man nag boo amul foo wéeru nga xam foo teg sànq yaa ngi comme dama amu fu ma wéeru daal gars man daal lama wax mooy nañ ma jox réew mi assemblée nationale kenn ku nekk li nekk sa bopp loolu nga mën a joué kon bokku ma salaam barke sëñ Bamba voilà mbokku taalibe li nga xamee di moo di xew bi nga xamee ni moom la gan yi war a xewloo tey ji fii ci kër Abdou Karim borom Makarimal Axlaaq euh, yéen a ngi nii ci biir yeneen a ngi gis teraanga yi nga xamee ni suñu Abdou Karim moom la dencal gan yi ak taalibe nga xam ni tey ji ñoo nar a ñëw euh, bu si bi nga xam ne ni maa ngi ko doon wax sànq ci la Serigne Touba Xaadim Rasuul jugee ci réew réewum Sénégal ngir dem rek liggéey Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yéen a ngi gis teraanga yi ñu ngi ko ñu ngi ko tegee ngir rek xaar peut-être ki mu di Serigne Abdou ñu daal di génn rek ñu waajal li nga xam ne ni moo di xewal yi nag euh, muy mel ni mbooloo mu mbooloo mu fàtt ñoom daal ñoo fi euh, ñoo fi ñoo fi nar a ñëw rek tey ngir euh, màggal bés bi nga xam ne ni moom la Serigne Touba doon génne ci réewum Sénégal ngir rek liggéeyam bi alayhi salaatu wa salaam tey nag ñoo ngi fii ci kër gi dañuy taxe benn benn Baye Fall di taalibe ci kër gi te ñu ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. naka ngeen dundee ma màggal gi fii. ah alhamdulilah di ko sant sëñ na mhm. bu baax a baax. d'accord ani kilifa gi ngi ci ñu ngi ci wàccaay ngir euh, teeru ko tedd gi moom tam mu daal di génn rek ñu waajal li nga xam ne nii moo di moo di xam naa bu ñu sukkandiku rek ci ñenn ci taalibe yi sëriñ bi ci kanam a kanam daal di génn. bàyyi leen rek dem dund ambiance bi fii ci Ndindi kër Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makar ma Thank you. Thank you. planète